auzu billahi mina saytaani rajim Bismillahirrahmanirrahim rahmaani rahim yi mbokk yi ñuy di ñu seetaan saa su ne ci DM TV ñu ngi leen di nuyu tey nag ñu ngi fii ci Darou Mouhty euh, di bërëb bi nga xamante si ni moom la ñuy defee gàmm gi fii ci Dakhla ñu ngi toog nag ak kenn ci daayira at tijaaniya bi euh, di daayira albirru wa taqwa di borom xam-xam bu ñu ràññee lool ci xam-xamam ak ci yaram ak ci tegginam muy oustaz Ibrahim ñu dalal ko fii suñu palaatoo fas yéene waxtaane guddi gi nga xam ne mooy guddi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yaa oustaz Ibrahim ginnaaw ba ñu la nuyoo ñu ngi lay bàyyee ak mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan DMTV nga nuyu leen bu ko defee ñuy jublu ci waxtaane bisimilah yaa oustaz euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di jët di jiital ci nuyoo bi waa DMTV ak waa daairatu muridiya bi nga xam ne moo nekk ndax la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf yaa oustaz ah, ginnaaw ba nga nuyoo dañuy jublu rek ci waxtaan mu mel ne tey laylatu mawlidi nabi di guddi goo xamante si ni moom la ñuy màggal guddi yonante bi ana lan ngay wax ci guddi googu noonu ak maanaam lan moy solos màggal ko daal waaw guddi juddu yonent bi sëñ Daara buñ ko bëggee wax fi la ñuy fanaan guddi la goo xam ne moo waral lu am lu nekk am ndax bindkat ba daf ne law laahu lam taxruji dunya min al hadami bu duuloon moom adduna du am jógee ci ñàkk kenn keene akrim bi mawlidi ahmada fii mawlidi akrim bi mawlidi ahmada fii nizaami mawlidi kon juddi la goo xam ne màggal ko dama dafa war ci doomu bi ki tax ñu amal la nag lu am lu ne moo mu am kooku màggal bés su juddim day nekk farata ci dund doomu aadama dëgg la euh, yow saas comme ni nga ko waxee rek kon mu mel ni guddig yoon màggal euh, màggal guddig yonent bi dafa nekk dafa am solo lool ah comme ni nga ko waxee rek waaye tamit comme li nga xamante si ni wax gàmmu mu nekk euh, loo xamante dafa yaatu lool ci senegal waaye bu it xel yëpp dana dem ci Tiwaawoon ah muy loo xamante si ni yàgg nañ ko fa def ay ati at lu jiitu sax suñu juddu ah ka ko fa daan amal nag di Sidi Hadji Malick ah ba ci ak njabootam ba ci tey ay sëtam ana lan ngay wax ci loolu ak képp koo xamante si ni mooy taalibe seex naka la war a mën a fonke guddik euh, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw Seex Sidi Hadji Malick daf jëmm joo xam ne yàlla daf ko teel a xamal secret bëgg bi te secret bëgg bi pour nit ki dundal ko mooy mu daje di ko fàttali nit ñi parce que kuy bëgg ku ne rek da nga koo xam koo xamul doo ko bëgg bi ko yàlla xamalee loolu nag mu ne ndax du ma organiser boo xam ne saa bu jotee ci at mi ma fàttali ci nit ñi kan moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam looloo waral ci la bind bindam yëpp daf ko passé ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bindam yëpp boo demee ci miimiya yonent bi rek la ci wax boo demee ci nuuniya yonent bi rek la ci wax mu nekk jëmm joo xam ne liggéey bi mu liggéey yonent bi moo waral fuñ tuddee gàmmo rek waxuma Sénégal way, adduna bi tout fuñ tuddee gàmmo rek xel dina daj Seex Seydi Hadji Malick ndax lim ci liggéey kooku cër la bu ko yàlla jagle sëñ Ablaye euh, kon comme ni nga ko waxee rek maanaam koo fonkul magal, ko màggal magal, ngay ak euh, ak juddoom kon mu mel ni Seydi Hadji Malick maanaam nekkoon na euh, maanaam koo xamante si bi sallallahu alayhi wa am fu mu tolloon ci lan ngay wax ci diggante Sidi Hadji Malick ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sidi Hadji ak Yonent bi sallallahu dama naan dafa nekk sët boo xam ne dafa xent yoonu maamam waaye xent bi nag du wax jëf la ndax moom daf ne walaysa li amalu min min ubbin bila amalin amul njëriñ nga naan bëgg naa nit bëgg naa nit te doo dem la mooy def te yonent bi dafa ñëw ne yàlla nee na yàlla nee na moom mu ñëw ne yonent bi nee na yonent bi nee na kon la may wax moom yàllaa ko wax moo waral Seex Sidi Hadji Malick nekk koo xam ne kenn la ci jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg kooku mbokk yi mooy Sidi Hadji Malick di jàmbaari lislaam ah doonoon koo xamante si nii maanaam fonkoon na rasulullahi sallallahu alayhi wa lool moom waral muy màggal guddeem gi guddik euh, juddoom gi maanaam at mu nekk waaye nag mu mel bi Sidi Hadji Malick bàyyi ah Sidi Aboubacar tamit daa mel ni moo ko wuutu ci xilaafa gi moom tamit ah, mel na ni am na foo xamante si nii tamit fa la fa fekkoon Sidi Hadj doon ko gàmmoo moom tamit am na niveau bu mu yóbbu gàmm gi loo ñu mën a wax tamit ci loolu diggante Sidi Aboubacar muy sëñ Babacar ak rasulullahi sallallahu ak digganteem ak juróom Sidi Hadj Malick waaw sëñ Babacar ak Cheikh Sidi Hadj ah, dafa mel ni li olof di wax ku lu tunkum nga sut ko Cheikh Sidi bi muy feetee guddi juddu Yonent bi fekkoon na mu man ko feete ci na mu tolloo woon waaye Cheikh Sidi Aboubacar dafa ñëw jël la mu yoroon ak li nga xam ne moom la baayam yoroon looloo waral mu am ampleur toll fi mu toll nii doole ji mu am nii a Sidi Aboubacar moo ko gën a yokk ndax dafa yore li baayam yoroon ñëw yokk ci li nga xam ne moom la jamono moom mu nekk ñaari cër moo waral gàmmu toll fii tey ah jërëjëf euh, yaa oustaz Ibrahim wax dëgg yàlla wax ji rafet na lool mu mel ni kon euh, gàmmu moom wax dëgg yàlla dafa nekk loo xamante dafa am solo waaye nag damay faral di dégg ñu naan gàmmu bidaa la mu mel ni ñi koy wax dafa mel ni dañoo xaw a réer léegi yow ana lan ngay wax ñooñu. moom de waay tontu bu gàtt la rek bu fekkee lu nekk bidaa rek ñu bàyyi kon dina bëri luñ bàyyi ndax noddu ñaareel ci juma Ousmane Ibn afan moo ko sos dajale alquran Abubakrin Sadiq moo ko def. dajale nit ñi ñu julli salatu tarawih ci wéru koor ci juma yi Omar Osman Omar ibn al-Khattab moko def ci diina ci kon bu fekkon lépp luy bidaa rek ñu bàyyi ko konoon dina bari luñu bàyyi la góor gi di wax ne wa qul suuli fa bid'atun mardiyatun fahsimin fahsim biha min bid'atin lam tujadi lajal ma ñi nga xamne ñoy wax ne bid'a la nga waxal ma leen ne même bu dee bidaa la bidaa bu rafet waaye nañu sant bidaa bu rafet ba continuer di ko def te sax lii bu ñu noon bidaa la sax doy na waar ndax koo xam ne yàlla moo wax ci boppam ne man dama julli ci moom julli leen ci moom mu nekk kon farata ci dund doomu aadama mu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax amar bu jógee ci yàlla boo demee ci ulamaul balaaxa dañ ne mooy amarul xaqiqi yi ndigal boo xam ne farata la kon dama naan feetal gudd juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ut bidaa ndigal la jógee ci yàlla alquran muy ay nas mun ci alquran mu mel ni kon mbokk yi leer na wax dëgg yàlla ni ko oustaz Ibrahim waxee ku mu doyut dara dootu la doy ndax loolu dafa leer naññi léegi nag dañuy jeexal rek xanaa di wax ne bisu gàmmu mu doonoon loo xamante si nii xëy na maanaam yàgg nga ko daan defe Sénégal daan dem ca dëkk bu sell ba di Tiwaawan di ko fi defee te yàlla suñu borom def nga ñëw fii ci tu euh, Maroc di ko fi defee a ah, ban yég yëg nga am ci loolu. waaw moom de danañ kontaan lool lool am yëg-yëg bu rëy rëy ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu yàlla sédd ba ñu koy defee fii ndax mën nañoo mënoon nañoo nekk ci beneen pays wala ci beneen dund boo xam ne du ñu am jotuk man lii waaye nag du tee saa bu jotee xel yi delluwaat Tiwaawan ndax Tiwaawan fiihaa al-yumnu lil mutayaaminiin foo mën a nekk ci adduna bi ndem mos nga gàmmoon teewal rek bu jotee xel dana fa dem waaye nag alhamdulilah rabbil alamin bi mu dajalee ñoo xam ne dinañ daje di feete juddub yonent bi alayhi salaatu wasalaam jërëjëf waaw loolu de mooy pas-pas ndax nit moom lépp lu mu gëm rek yaakaar naa tukki waru ko mën a soppi kon jërëjëf euh, oustaz Ibrahim dañ lay bàyyi rek euh, nga tàggatoo ak euh, nuyu waa daayira bi nga xamante si nii ñoom ngeen di ànd di liggéeyandool ci euh, ci daayira bi ak ci gàmmu geeg organisation beeg yëpp rek dañ lay jox rek nga jox sa joxe sa tàggatoo daal. waaw tàggatoo bi daal mooy ñu jàpp ci màggal juddu Yonent bi ba loolu passé may sant waa télévision yi nga xam ne ñoo fi teew ak seen i ndax liggéey la boo xam ne yombul buñ ci taayal ci yokkat ndax lu jafe yombul euh, lu baax yombul. Lolo waral ñu ne yonent yàlla yusufa bu nattum gaawoon a jeex ci prison ba du am grade bi mu am te demoon na ba mu ñu nekk gouverneur Misra ma di leen wax ne bu ngeen bëggee nekk gouverneur ci li ngeen di nek il faut ngeen nangu ca yàgg te nangu koo liggéey di leen ñaanal yàlla may leen tànk kanam ngeen bañ a dellu ginnaaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, oustaz ibrahim kon mbokk yi euh, kooku moo nekkoon oustaz ibrahim bokk ci daayira albirr wa taqwa doonu borom xam-xam doon gëstukat ñoo amoon mbégte lool dalal ko fii ci suñu palaatoo kon xam naa dañuy wéyal waxtaan wi rek ak euh, ci yeneen euh, jëwriñ jërë ngeen jëf kon